Euh, mbokk assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. tey nag tey ci suba allo Dakar TV international demal na leen fi nga xam ne mooy jam ñaajo moo visite boo xamante si le directeur général de la Sénélec tey moo ñëwoon ànd ak nga xam ni mooy président PDG groupe Excelec point SA muy entrepreneur bi di monsieur Pape Ali Gueye tey nag li tax ñu ñëwoon fi xam ngeen ni Sénégal li président son excellence Euh, di wax ni bëgg na balaa deux mille vingt cinq sénégalais bu nekk yëg sa bopp ci li nga xam ni mooy courant bëgg na kër gu nekk sénégalais bu nekk am courant. sene président directeur général bi nga xam ni mooy Pape Aly Gueye di entrepreneur bi tey ci suba fii la ñëw gis ngeen ko mu ñëw ànd ak directeur général xam ngeen ni seen rek am na ci 30 pour cent li nga xam ni mooy li nga xam ni moom mooy liggéey bi nga xam ni moom la waa Estelec yor ñooy conseil euh, d'administration bi. ci kaw loolu bi ñu ñëwee ba def visite bi xool liggéey bi nga xamante ni si moom la doomi réew mi di liggéey doomi réew mi mi koo xamante ni si kenn la ci réew mi muy Pape Aly liggéey nga xam ni bëgg-bëggam mooy li nga xam mooy bëgg-bëgg président de la république bi ñu fi jógee gis nga ñu ñëw fii ci yaraax fi nga xamante ni tey ci fi la réseau bi nekk nga xam ne tey fi la lu bare bare bare ñu ngi koy defar fii tamit bi ñu fi ñëwee xam ngeen dégg ngeen ko léegi li président li président bi wax ni am na sept cent personnes yoo xamante ni jël na leen ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci biir usine bi am na plus de dix mille personnes yoo xam ne tamit jël na leen nga xam ne tey daanaka ñooñu bu ñu xëyee ñu ngi xëy ci li nga xamante ni si mooy ci euh, usine bi loolu nag dafay bokk ci bëgg-bëggu président de la république kon su ko defee dañu leen di bàyyi ngeen déglu ki nga xamante ni si mooy directeur Senelec buñ ci jógee ñu bàyyi leen ngeen déglu ki nga xam ne moom mooy directeur général Excelec euh, Pape Aly Gueye di doomi réew mi bëgg-bëggam mooy fexe ba li nga xam ne moom la président de la république bëgg mooy d'ici deux mille vingt cinq chaque sénégalais yëg sa bopp ci li nga xam ne mooy courant. waaw ñëw bi ñuy ñëw fii nii tey moom ak li ñu fi gis. daf content kontaan loo ndaxte président def nañu dafa bëgg fi ak 2025 sénégalais bu nek am courant lool nak pour ñu mën ko pour ñu mën si yegg ci délai bu nonu da fay soxla lépp lu nga xamné mom lañu wara jëfëndiko pour yobbu courant bi fofu nonu ci sénégalais yi ñukoy produire fi ñukoy défaré fi fii lool motax tay ji ni buñu nii promoteur bi Pape Alé de euh, usine bu mel nii bi nga xamné mo ñuy fournir poteau béton té yaakar na né ci luñ ma wax at bu nek dinañ mëna défar defar lu tolloog ñaar téeméeri junney poteau té lool dina lek lo xamné dootuñ soxlaati diko jëli bitim réew jëli bobu nga xamné daal lañu nañu ay weer wala ay ñaari weer pour ñu mëna approvisionner poteau yi légui dañuy ñëw jël ko fi rek yobbu ko directement

ak ñi nga xamantene ni ñeneen ñi nga xam ne ay journal yeeg yooyu dem na ba toll si dix mille personnes waaw avec les prestataires dem na ba toll si dix mille te loolu yaakaar naa bu ñu boolee ñaar yooyu noonu yëpp nekk na loo xam ne dinañ ko war a encourager au moment où sénégalais yëpp ñu ngi wax ne nañ dooleel privé national bi nañ développer contenu local bi yaakaar naa ne lii exemple la bu rafet boo xamante ne nii ci ñaari objectif yu président fixé yëpp am nañ ko maanaam mooy dooleel privé national bi mooy créer ay emploi yoo xam ne sénégalais yi dinañ si mun a gis seen bopp loolu moo tax ñu ñëwoon fii nii tey encourager promoteur bi gërëm ko sant ko di ko wax ne nag lii moo justifié lu tax Senelec ñëwoon jël 30 pour cent si action yi c'est-à-dire bokk si ba nga xam ne dinañ ko mun a accompagner pour moom it mu jàpp si suñu projet yi ñu gën a gaaw defar leen ñu defar leen dans des qualités yaakaar naa ne lu ñu fi gis si qualité ak lu ñu fi gis si matériel yi nga xam ne moom la ñuy defaree poteaux yi dal na suñu xel moo tax ñu ngi koy encourager di ko féliciter bu baax pour mu continuer suñu programme accès universelle boobu. général de Sénélec qui est venu voir sa sa filiale Excelec il vient faire connaissance non seulement avec sa filiale, et également il vient faire connaissance avec son personnel. Il est également venu avec le conseil d'administration de Excelec. Aujourd'hui, cette visite de l'industrie de Djamniadjou, c'est une première étape. La deuxième étape, ce sera à Anne. On va aller à Anne pour visiter les autres infrastructures de Excelec. C'est en ce moment-là qu'ils vont voir le matériel des deux réseaux, les câbles et accessoires électriques qui font que en combinaison avec la fabrication de supports, avec le matériel d'exploitation qui est sur place à Anne, avec cette jonction-là, on va très vite sur tous les chantiers qui sont initiés par, par M. le Président de la République. Content l'ol parce que mon bi mu ñëwee dafa fekk euh, Excelec taxaw bi mu taxawee dafa ni foog ma dem xooli lan la conseil d'administration excellent.

loolu loolu lañ ci dox te loolu mooy soo ndam. waaw jërëjëf gannaaw bi ngeen seetaanee loolu ba noppi xam ngeen ni li président directeur général euh, Senelec wax ci Pape Alé Guèye bi nga xam ni mooy directeur général Excelec point SA xam ngeen ni lu bari ci réew mi bu ñu ko masaan a soxla Sénégal day dem di ko wuti bitim réew tey nag tey jii ngeen xam ne tey ki nga xam ni mooy doomi réew mi. di Pape Ali tey bari na ci loo xamante ni lu ñu daal wuti bitim réew lu jëm ci wàllu courant tey gis ngeen poteau yi nga xam ne tey fii lañ koy defaree fii ci Sénégal di ko jël di ko utiliser fii ci Sénégal li nga xam ne mooy bëgg a bëgg président de la république li mu wax ni d'ici deux mille vingt cinq bëgg na sénégalais bu nekk euh, yëg boppam ci Sénégal am courant kon ñi ngi ñi ngi jaajëfal ki nga xam ne mooy Pape Ali di ko ñaanal moom it ndax euh, lii dafay wane ni sénégalais bu nekk rek. yaa ngi dox ay jéego ngir lépp loo xam ne ñu ngi ko daan wuti bitim réew ñu koy defaree fii ci réew mi. Euh, alo Dakar TV international moo leen doon euh, moo leen ko jëlee woon fi nga xam ne mooy jëm ñaajo ci micro ki nga xam ne mooy Assane Gawlo Mboup jërë ngeen jëf. Monsieur le Président comment tu vas. <laughs> fàtte. jërëjëf.